dellu nañu di leen di nuyu leen di ziara ñu la nation comme ni ngeen ko gisee euh, place la place de la nation muy place de l'obélisque Colobane nañ Colobane nañu nekk le jour de tous les dangers ah jour danger boo xamante ni nit ñi am nañu tiitaange gis ngeen sama ginnaaw takk der yi fi nekk macha allah takk der yi li ñu njëkk def le constat mooy que ne dañoo quadriller maanaam place la nation bi yëpp dañ ko wërale ak ay barrières maanaam kenn amu fi accès maanaam kon interdiction bi ñuy wax ci wàllu euh, manifestation bi kon gis ngeen ko gis ngeen ko seen i bët ci Sénégal mais tamit ñu gis ay tenues yu bees tàq lañ sol ay ay gilet yu bees tàq lañ sol ay mbaxane seen mbaxane koppati yu xonk yi yu bees tàq lañ sol arm yi noonu oto yeeg lépp génn na kon mbokk yi le jour de tous les dangers fii ci place de la nation incha allahu rabbi di ngeen ko dund en direct ci Sénégal Euh, El Malick ak euh, góor gi mais booy xool takk der yi ñuy commencé di dégager ay nit fële ci kanam ba ci côté marché bi ñu ngi dàq ay nit yu bëri bëri mais dañu def benn constaté bi am nañ ay jeunes yoo xamante ni dañ leen gis ñu nekk ci ay ruq-ruqaat yor seen i drapeau dafa mel ni ki ñoom tamit pare nañu jël nañu décision en tout cas ñuy ñaan jàmm ci réew mi kon euh, góor gi dañuy ànd ak yow ñu xool en image li nga xam moom moo xew Colobane ak li ko wër. comme ni ngeen gisee mel ni actuellement dañoo nekk di placé seen dispositif sécuritaire vraiment di évacuer les lieux di dàq nit ñi yooyu wax circuler circuler actuellement situation bi boobu noonu la Yang yon terabur. pas dans ça. waaw d'accord vous n'êtes pas dans ça d'accord. deuxième solution mooy maanaam gis nga barrière yi ñu ngeen def ñun on les respecte dañoo ñëw pour taxaw nii rek dañ ko respecté ndaw yi ngeen def seen barrière offensé wuñu ko jéggi parce que amuñu droit amaguñu droit suñu heure jotoo ko ñu ñëw taxaw donc mën nañu ñëw naan dispersez-vous encore on se met où là voilà mais on nous a appelé ici wala ñu taxaw wala taxaw ñu taxaw non ñun demuñu kay. ah. leen ko waxee rek euh, police actuellement li ñuy def mooy euh, dañuy dégager nit ñi euh, fépp koo xam ne di def nañ fa yi kenn du fa taxaw yoo xam ni tamit dañuy taxawoon noonu am na koo xamante waaw am na ay jeunes yoo xam ni dañu taxawoon nii après si ginnaaw barrière yi ñu doon waxtaan ak ñoom Eh, mais dafa am kenn koo xamante ni dañ ko interpellé ne ko kaay dafa doon caas ñu woo ko ñu ngi taxaw noonu eh, ci digg policiers yi policiers yi ñu ngi wax ak moom ñu ñu wax ak moom ñu ngi takk maskam di déglu eh, da ngay xool sax ñi nga xamante ni ñoom dañoo dëkk côté bii pour ñu jaar bi dañ leen wax nañu wiiri waaw da ngay wiiri koñ jaar beneen koñ moo tax am na ñu bëri ñoo xam ne am nañu lu leen naqari kon dispositif bi nga xam ne jël nañ ko mooy barrières yi daal kenn du fi jaar waaw lu dul taskatu taskatu xibaar amul kenn ku fi jaar même boo fi dëkkee sax da ngay wiiri jaar beneen côté am na ay xale yu wàcc léegi xale yi ne leen ñun suñu gàlle fii la ñu leen wiiri leen voilà mu ngi noonu kon euh, kooku noonu laaj nañ ko ba pare bàyyi nañ ko mu delluwaat bàyyi nañ ko mu delluwaat wax nañoo moom déglu na leen mi ngi noonu di dem ak maskam waaw bro bro elman voilà euh, grand ñu ngi lay nuyu ñu gis la fii léegi ci dispositif euh, police bi mu wax ak yow lan ngeen waxante euh, ci biir waxtaan non c'est que policier dañoo dañoo dañoo d'abord maa ngi nuyu Sénégalais yëpp maa ngi nuyu képp ku ñuy déglu xam rek dañoo ñëw taxaw carrément parce que suñu war jotul ñu ñëw taxaw ci seen i barrière ñu ne ñu pousse leen ñu pousse ñëw ñëw bu nekk nii ñu ñu naanaat pousse leen encore mais ma leen mais yan barrières yi ngeen teg ñu respecté nañ ko respecté nañ ko barrières yi jéggiwuñu barrière dañoo taxaw si barrière ngeen ne ñu pousse ñu respecté poussaat mais encore ngeen bëgg ñëw nan da ngeen ñu kii mu may naan ñoom ñoo gën a bëgg a jàmm ay affaires noonu ils sont plus particuliers que nous donc suñu heure jotagul nañu disperser affaire noonu wala ñun bu ñu dispersé wul ñoom nañ koy def à notre place c'était juste ça loolu la ñu doon waxtaan ci biir quoi. yéen seen koñ ngeen nekk. mën naa ne waaw suñu secteur lañu ne parce que ñoom dañoo baare dañoo baare bu ñu baaree jékki-jékki rek ñun ñu taxaw suñu suñu wet parce que bu ñu xasee ba baaree amatoo droit pour jéggi donc nu ñu amulee droit pour jéggi ñu taxaw ñu bëgg ñu ñëw disperser encore ko garaaw xaaral ñu puusat lan ngeen di xaar da ngeen di xaar manifestation wala da ngeen taxaw rek loolu grand lépp la ñuy xaar bu laajee bu laajee manifestation ñu manifester bu ñu naanee du fi amee dañuy jàmmarloo ak ñoom parce que xoolal ce pays là ñun ñoo ko moom xol manifestation mu laaj rek on ne prêt a à affronter bu doon suñu bakkan sax suñu bakkan jàngat ngeen yi am boo leen gisee ñu cadre fii cadre kër Ousmane Sonko ba waa mu bëgg génn sax mu nekk loo xam ne lu jafe la ban jàngat ngeen ci am en tant que Sénégal non xam nga ñun sénégalais léegi dañoo jàng ku ci gën a tuuti am na bac comprendre ga ñun léegi dañoo jàng kenn mënatuñu nax kenn manifestation le préfet n'a par le droit d'interdire la manifestation amul ci sañ-sañ mais ñun dañuy loi bi dañ koy jàpp dañ koy liir donc manifestation bi dafa war a am lii dañ koy yëgal il ne remplit pas les conditions bi ñi nga xamante ne dafa war a interdire marché bi les conditions ne sont pas réunies moom ni muy sax lu muy wax amul raison pour laquelle manifestation bii nii daf ñu jaral lu nekk Macky Sall ndax xam ni ndax ñun population bi on est plus que déterminé que lui non dégguma Colobane je viens de Kër Massar Kër Massar laa jógee barke rasulullah man dama teel génn man fii moom ma ñor fii la ñu woo fii la ñuy ñëw ay Kër Masar ay kii man Kër Masar laa jege mais fii moom ma intéressé point point bii bu jaree xeex dañuy xeex bu ñaree def lu bu bu jaree simi sama bakkan teg ko fii dama koy jox woon Macky Sall ndax xoolal troisième mandat du fi amee te list yeewi askan bi élection législative da ci bopp par la force par A ou yow la moo la ah, ñun lii moo ñu fi indi quoi. fan ñun mbuur lañ jógee. mbuur nii. waaw. ah yow décidé nga de. ah waaw Kër Massar yow mbuur. waaw kañ nga ñëw. man depuis ay 9 heures wala maximum 9 heures quoi. kon yow manifestation lu ñu metti ci réew mi. dëkk dëkk bi dëkk démocratie la. lu waaye bu la dara naqaree dañoo war a toog ñëw wax marche pacifique comme li ko Ousmane Sonko waxee du ñu sànni xeer du ñu suñu paree ramasser dem parce que defuñu indiwuñu fi violence defuñu fi dara kon dañuy ñëw mars wane suñu euh, lu ñu metti ci dëkk bi dem taxaw. loolu kese jigéen tey si manifestation bu mel nii nga décidé wu manifestation boo xam ne dañ ko interdire yow nga décidé wu ñëw ne dañ ciy participer lan moo la gën a motiver ci nga am motivation boobu. ah mais Macky Sall moom dafa yaakaar ni réew mi moo moom quoi di jàpp loxoy magistrat yi di weñ di bum di bumi tamit. ay sénégalais lañ ci dëkk bi lañ dëkk mais yaa ma neex ñëw xëcc defal li waxal lii man tey jii soo ma ñëwoon tey jii ma nekk ci ñoom ci état bi di liggéey soo ma nee defal li te ànduma ci du ko def dañ waxante dëgg man kenn du kenn du ma jënd. déedéet lu luñ ko bëggee rek ñu dem ci. yow mi amoo looy bañ. aw ma dara lu ma ci jàpp kaso ba ci leneen ak leneen. bañuñu ci daal lu mu lu mu laaj daal ñu def ko moom ñu ne on est on est pare quoi. asalaamaaleykum ñu ngi lay ziar. Euh, tur bi. waaw man de maa ngi tudd maam Cheikh lañ may wax mu Serigne Saliou Mbacke. maam Cheikh Anta mu Serigne Saliou Mbacke ki gën kooku jëmm ji gën kooku yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu si barkeen ci barke Serigne Touba alors tey muy manifestation boo xam ni dina am euh, ñi nit ñi ñu ngi ragal fitna am daanaka daana fi am yan jafe-jafe ngeen di dund est-ce que yéen seen xel dina dal. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziare yéen waa Sénégal te di leen ñaanal jàmm suñu borom yokku leen barkeel leen. Euh, laaj bi nga laaj dafa am solo ndax nit boo dëkkee ci gox yàlla dogal nga am fa barabu liggéeyukaay teg fa ay nit ñuy daan seen doole lu mel ni mu jege ci côté bi nga xam ne moom lañ ko war a defee mooy de 100 mètres bu lu mel nii waree am tay rek maanaam yow da nga tiit te da nga am jàqare donc nag euh, li ci des mooy li may daan faral di wax rek ca waxoon naa ko démb mooy li ma jàpp mooy manifestation yu mel ni bu amee li gën rek mooy ñu joxe autorisation parce que gis nañ bii passé bi joxe autorisation amul benn jafe-jafe boo xam ne am na ci manifestation bi mais donc ñun pour suñu xel di ñàkk teeye rek wala mu ñàkk dal rek mooy bu autorisation amul parce que bu autorisation amul ñi war a manifester no dañu manifester wu ku ne xam na ne dana am ay dóorante dana am ay sànnante dana am fitna donc kon li gën rek dama jàpp ne ñoom comme ñooy manifester wu ca dañu wax ne loi réew mi maye na ku bëgg a wu nga manifester wu ci jàmm te damaa jàpp ne li ko tere buñ ko encadré ci gën a gaa néew dana mën a sàmm li ñu war sàmm kon li gën doon jàmmi réew mi rek comme ñoom nee nañ dañoo am lu leen naqari ba ñu manifesté wu donc li gën mooy nañ leen di bàyyi ñu manifesté wu ci jàmm def ko ci salaam loolu jàpp naa ne mooy indi ak dal ci réew mi te ñun ñi nga xam ne tamit yàlla dogal na ñu dëkk fi am fi ay barabu liggéeyukaay teg fi ay nit ñuy daan seen doole donc loolu tamit ñun loolu moo ñu gënal waaw parce que parce que dañ ci am ay jafe-jafe ndax dèjà ci kanam tuuti rek ñun boo yeexee dañuy tëj parce que dootul wóorati ndax mënoo fi teg ay gone ñuy liggéey ñuy sànnante ay xeer di doolante ay lacrymogène yàq toj sa place wala ñu yàq ko donc boobaa tamit yow yaay perte rek buñ ci gaañee kenn ñëwnuñ ko tamit yow yaay de xala donc moo tax dañu obligé sax maa ngi koy wax gone yi léegi naan leen buñ julee jumaa ba pare bàyyi boo ngeen tëj ba xam situation bi nu muy demee fekkee jàpp nañ ne rek yàlla def ci ndox mu sedd ca moom la ñuy ñaan ah ñu continuer liggéey bu fekkee tamit gis nañ ne yeneen jafe-jafe wala yeneen ay sànneek ay yeneen ñaanuñ ko yàlla da ciy am dañu obligé tëj te kon lu ne xam na ne loo xam ne waroon xëy di liggéey boo tëjee sa place ci amul lenn loo xam ne ni ak dëkk bi fi mu toll kon ne xam na ne loolu jafe-jafe la mais sa obligé ko kon waaw donc ñun nag loolu moom wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg moom mosuñ ko dugg ndax lu mel noonu comme li ñu wax rek bu ñu gisee ne jafe-jafe nar naa am mooy gàllankoor bi mooy sa temps bi nga waroon a liggéey moom ñàkk mais ñun buñ gisee ne lii jëmul kër rek dañu daal di tëj suñ daal di tëj loolu mooy jafe-jafe bi waaye nag moom benn gaañu gaañu wala benn yàqu-yàqu duñ ko ci am parce que duñ ko fi xaar ndax buñ gisee ne affaire baa ngi ñëw rek autorisé wuñ ko nar naa am ay jafe-jafe dañu daal di tëj place bi kenn ku ne du gone yi dem buñ bu nekkaatee ci jàmm ñu ñëw continuer waat liggéey bi waaw. yow li ma lay laaj rek mooy que ne amoo tiitaange ci ci réew mi. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ak xéwal waaw réew mi moom wax dëgg yàlla am na ci tiitaange comme ni ko sëñ bi waxee rek maanaam yu demee nii maanaam dañ cee war di ànd ak xel ak xel mu dal ak ak ak ak ak ak dal comme li ko sëñ bi waxee maanaam euh, autorisation bi bu amoon defe ne ni moom wax dëgg yàlla jàmm du jàmm dina am ba tax na daal li ñaan yàlla defal na ci tawfeex ak sutura ba yàlla sottal ko jàmm rek ci kàttanu yàlla. waaw waaw jërëjëf jërëjëf